waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu di leen zaara di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal jiital ci nuyoo bi nag Pa ci laaj Jóob mi nga xamante ne ni tey ci këram la ñu nekk ak maami soxnaam di ñaan yàlla yàlla bàyyi leen fi guddal seen fan te dolli seen wér tey nag bu gisee jataay bi war ngeen a xam li ko waral. ASC Mbaxaan moom moo woote li mu woote nag mooy dafa yoroon équipe boo xam ne dafa doon def nawetaan dem ba ci yàgg mag ñi fi nekkoon ku mel ni Jëgg Ndiaye Baye sàmba jara Abdourahmane Boy Ousseynou Diop njawar Saw ci laa Diop ñu nga xamante ni ñoo doon mag yi bi ñu demee ba gis ni kat mbaaxaan ji fii mu yegg nag doy na ci nawetaan nañu jël équipe bi yóbbu ko division régional jël ko nag pour division régionale bi pour secteur zone nord bépp di ci bénéficier wu loolu moo waraloon ñoom ñu créé ko bi ñu ko créé itam yàlla def boobu ba léegi équipe bi moo ngi dox di dem mais yàlla dafa def nag juróomi at yi jàll dafa nekkoon côté jàmm gën rek mbaaxaan amoon ñàkkoon ay joueurs yoo xamante ni ñoo ci nekkoon léegi bi ñu demee ba xale yi màgg na ñu gis ni delloosiwaat ko jot na yàlla dimbali nañu ba ren delloosiwaat nañ ko indiwaat nañ ko ci koñ bi tey jii nag ñu daje woon fii doon wax nit ñi nii ni ngeen xam ne daal entraînement yi moom commencé na loolu coach bi dina ci ñëw moo ngi nii sama wet Ousmane Diouf da xam ne daal baaxaan ji seen bopp képp koo xamante ne dégg na sunu tur wala mu dégg sunu gis ñu na nga xam ni woo nañu la ci équipe bi kenn ma sàmba moomu ko ma dem ba moomu ko ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko bokk équipe la boo xamante ne nii kenn ku ci nekk ci ñun bu ci nekkee yàlla mën na laa dimbali sa njaboot. bu ci amee dara dina la dimbali waaye dina dimbali sa gox yëpp kon loolu ñoo ngi leen ci woo képp ko am xale buy fubal te man ko ñoo ngi lay ñaan nga fexe mu ñëw jege si coach si yàlla dimbali leen ba bu ëllëgee muy seen njariñ waaye du suñu njariñ ñun ñëpp tey nag yàlla dafa def itam bi ñu waree daje pour def conférence de presse bi ma Samba Diop daal di ñëw fii indi ñu ay équipement yu bare bare bare bare ànd ak Mao Fall moom it ñëwit di doomu gox bi di sët di jarbaat ci jëgg njaay moom it indi ñu ay équipement ba nga xamante ni li ñu waxalee sax la ñu waroon a jënd yëpp ñoom bi ñu ëndee rek ñun suñu xel sax dafa dal xaalis bañ ko waroon jënde ji boo moytul ay ginaar lañu koy jënde wala ñu noose ko nga xam ni kon ñoom ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen waaye yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla lafa leen cat vraiment taxawu nañu foo xamante ne ni seen waajur yi fii rek la ñu nekkoon parce que seen waajur yi ñoom ñoo yoroon équipe bi leneen ñoom ñoo ko ci def ñoo doon suñuy dirigeant di suñuy nijaay di suñuy mag di suñuy xarit di suñuy lépp kon tey bu ñu demee ba ñoom ñu xale yu yor ko loolu ñun suñu xol dafa cee sedd suñu xel da cee da cee dal maire bi itam ñoo ngi koy woo muy Mamadou Diakhaté moom it dem nañ fa seeti ko moom it muy xale bu yaru waaye xale bu baax waaye xale bu am teraanga jël ay teranga teg suñuy loxo ni dinañ wutal yi partenaire dina jëf lu tout itam ba terrain bii bu teelee yegg mu teg ko ci suñuy loxo loolu itam muy teranga joo xamante ne nii mënuñu ko koo fay dirigeant yi nga xamante ne ñoo nekk tey jii nag ci équipe bi yor ko Ousseynou Diop moom la yàlla def moom la ñu jiital moom moo fi nekk gum comme président Mbaye Ndiaye ñu koy wax Babacar di doom ci jëggi Ndiaye moom moom moo nekk trésorier bi Ousmane Diouf mi sama ndeyjoor moom la ñu jox wàllu équipe bi moom daanaan fay mii ci sama càmmoñ Alioune Paa la moom ca dirigeant yu njëkk ya la bokkoon ndax moom bi muy diriger sax booba tollul ci dirigeant waaye yàlla dafa def mag ñi ñoo ko wóolu woon indi woon ko tegoon ko ci seeni loxo man mii ba may fubal sax diriger na ma te maa ko mag nga xam ni kon yàgg na ci équipe bi te équipe régionale bi itam bare na lu mu ci def bari na lu mu ci wax waaye bari lu mu ci taxaw kii ci suñu day jor bada la moo ngi dëkk koñu renaissance mais bañ ko ko waxee boobaak tey itam noppaluwul benn bis subaa ngoon bis bu ne duñ tudd du ñu daje mukk benn yoon réunion te turam duñ ko tudd fii moom it ñoo ngi koy dalal bu baax xam ni daal yaa ñii nga fi fekk benn ngeen du ngeen ñaar lu ñu fi man na nga xam ni war nga ko fee man loolu daal lañu leen doon wax di gërëm itam presse bii nga xamante ni seen leen ko waxee démb rek lañ leen ko wax ñoom ñëpp ñu teew ñoom ñëpp ñoo ngi nii teew ak yéene itam la ñu ñëwee yéen kenn mënu leen a fay waaye xale yi nga xamante ne ñoo commencé woon liggéey bi ñoom it ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla ndax tey su fekkul woon ñoom ñu commencé liggéey bi tey heure bii ñun duñu fi toog di wax ndax su boobaa dañ dul affilié fédération ba man di bokk ci saison wu 2024 2025 bi mais ñoom ñooy ñëw dajaloo waxtaan jël seen xaalis engagé te fekk na booba sax jotaguñu benn subvention kon ñoom it am nañu sant am nañu ngërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen yàlla fay leen mais nag li ñu def rek la ñu war a def parce que seen waajur yi ci lii la ñu nekkoon ci lii lañ leen xamoo woon kon ñoomit bu ñu ñëwee rek jaar nañu fi seen waajur yi jaaroon te loolu itam ñoo ngi leen ci sant ñoo ngi leen ci gërëm vraiment kontaan nañu daal bu baax a baax a baax a baax di wax daal nit ñi di entraînement yi commencé na fii ci kawraay bi entraîneur bi moom moom moom sax yooyu waaye ma waxal ko ko rek mu xam ni moom daal commencé nañu àllarba bi passé à partir de 7 heures 7 heures début bi dañ daje ci kawraay bi kon ba keroog nawetaan yi di jeex ñuy door reprendre ngoot yi loolu itam na ngeen ko xam ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen yàlla sàmm leen yàlla aar leen ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu jataay bi ni ko Ilimane waxee noonu la noonu la demee mais man toujours en tant que directeur technique dinaa ci mën a wax lu baree bari ndax fi ni jëm moo tax ak mbaaxaan bi ñibbi waat ndax dafa nekkoon dafa génnoon ñu joxe woon ko lu yàgg a yàgg mais yàlla def na nag ñëwaat na nag léegi suñuy loxo moo tax ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp pour ñu mën a ñëw mbaaxaan bi commencé na depuis mercredi passé ñu ngi ci kaw bi di entraîner il faut ma jàllale information boobu ba pare lu tax ñu war ko waxe noonu ndax cest à que nawetaan bi dafa jeexagul moo tax ñu indiwaat équipe bi ni leen ñu commencé nañu depuis mercredi ñu ngi ci kaw bi di entraîner ñëpp nañu soxla nag boo gisee depuis loor ba léegi kenn toogul di ko Ilimane waxe kenn toogul kenn toogul depuis booba ndax bi ñu jëlaatee équipe bi indi ko ci ci zone bi depuis loor ba léegi kenn toogatul moo tax ñu ngi woote pour ñëpp ñëw ñi mën a seeti nag ñi ngi seeti ñëpp actuellement depuis loor ba léegi tooguñu même ku ku déggul sa turit boo boo boo déggul sa turit jàll na information bi jàll na moo tax ñu soxla ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn ah. ndax équipe bi moo ñibbisiwaat ci zone bi comme nag dafa ñibbi si waat si zone bi zone bi ñëpp nañu soxla ne ñëpp ñu ngi seeti coach yi ñu ngi seeti dirigeant yi ñëpp daal ñu ngi leen di seeti daal. Hmm. bàyyiwuñ si dara ndax ba pare danoo dugalaat ak académie bi kii di wax équipe bi daf dafa dafa amaat leneen lu bees lu si dañ ko cee taxawaatal. Hmm. dañ ko cee yokk ndax pépinière bi. ñëpp nanu su lépp la lépp nanu taxawaatal la ah. moo tax fi mu nekk nii équipe bi actuellement nii ñu toll nii toogatunu ndax dañ koo bëgg a def comme comme ay comme club professionnel yi loolu moo tax fi mu nekk nii toogatunu bàyyitunu dara ci équipe bi mbaaxaan bi daal li ma bëgg a xamal ñëpp daal nanu xam mbaaxaan bi taxaw na entraînement yi commencé na loolu daal xamoon naa dinaa ko ci dolli ba xam nag vraiment ba pare nag remercier ñi nga xam dañoo indil outil de travail yi Ilimane wax na ko ndax équipe lii la équipe lii la moo tax vraiment ñu ngi remercier Maawo ak euh, kii Massamba Diop ñi nga xam ñoo njëkk a ñëw def ci action yi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax équipe bi daal li ma ci bëggoon li ma ci bëgg mën a wax daal vraiment loolu la mooy mbaaxaan bi taxawaat na mbaaxaan bi ñibbisi na c'est commencé nañu entraînement yi vraiment amatuñu sax temps à perdre fi mu nekk nii loolu daal xamoon naa dinaa ko ci dolli lii jërëjëf merci beaucoup